mbokk yi président de la république dafa yëkkati ay kàddu bi mu yëkkatee ay kàddu jëmale ko ndaw ñi président xamal na xale yi ne leen li mu leen di xamal lenn la mooy yéen ñi nga xamante ni bii yéen ay ndaw ñi nangeen moytu ku leen di woo di leen jañax ci yàq naan leen yàq leen teer bi yàq leen BRT bi yàq leen li nga xamante ni bi mooy Dakar Dem Dikk yi loolu moomuma ko seen moomeel la muy wax joo xamante ni bi wax ju am solo la président joxoñ nañu TER joxoñ ñu BRT joxoñ ñu dakaar Dem mais ñu def benn constat boo xamante ni bii gis nañ ko ñu gis ni yàq yi nga xamante ni bi xale yi ñu ngi koy yàq gis nañ ni fan yi bu xale yi jógee di yàq ci li nga xam ni moom lañuy dal ci kaw mooy moomeelu doomu France yi ci réew mi loolu lañu gis ni ñooy yi xale yi di yàq lu ci mel ni tey xale yi dinañ jóg attaquer lu ci mel ni Auchan yi attaqué lu ci mel ni total yi ñu jàpp ni kii yee ko moom ak lépp loo xamante ni bi France ko moom ba français yi ñoom ci seen jëm bopp ñu yëkkati woon ay kàddu wax léegi nag bu fekkee ne président ñëw na ne buñ leen kenn yàqaloo terre bi bu leen kenn yàqaloo lii bu leen kenn yàqaloo lële te ñi nga xam ne ñoom lañ doon yàqal tudd leen loolu la ca Assane Mesere wax ne lu tax mu ñuy joxañ lu tax mu ñuy joxañ TER bi lu tax mu ñuy joxoñ dakaar Dem Dikk lu tax mu ñuy joxoñ beerte mais man damay wax ni président loolu muy wax yooyu yëpp bu leen yàq bu leen yàq jàpp naa ni ñiy yàq lan moo tax ñuy yàq am na lu bari loo xamante ni bi xew na fi bu fekkee ne président jàmm ji nga xam ni moom lay wax moom la bëgg yomb na lool ngir ñu am ko lenn rek la lenn rek moom mooy li nga xam ni moo indi jafe-jafe ci réew mi maanaam lu reer ci bëtu nit ñi ñu bëgg ñoo wan nañu liikat kat leerul bëgg ñoo indil yeneeni mbir nañu yëf yi nii la demee lu bokkut ak nit ñi ñi jàpp nit ñëpp jàpp ni président dafa bëgg a kandidaa boo xamante ni bii moo ko fi war a jëlee gëm na ni kii donc mooy ki ko fi mën a jëlee mu neen naa ko éliminer ba du bokk ci course bi ñiy jóg di xeex ñépp loolu moo tax ñuy jóg di xeex parce que dañu ne dañoo lànk lu tax ñu lànk duñu gis sunu candidat di ko xool ba li daloon Karim wàdd dal ko duñu xool sunu candidat ba li daloon xalifa Sall dal ko loolu bokk na ci li tax ndaw ñi bu ñu gisatee luy riir wutali foofu dañuy xam ni actuellement nag lii lañ ci jublu te lii duñu ko nangu kon defe naa ni bu fekkente ni bii nekkul pour éliminer candidat je pense que am na yeneen proposition yoo xamante ni bii dégg nañ ay nit waxoon ne bu fekkee ne justice kese la la ñuy wax ne moom lañ bëgg kii nañ ajandi yii yëpp ba procès ba élection romb bu élection rombee ñu soog a teg li nga xamante ni bii moom la ñuy wax justice bi soog koo indiwaat li nga xam ni mooy justice ci yenn yi nga xam ni mën naa yëngal réew mi di moment que président moom ci jëmi boppam nee na am na loo xam ni bu waree taalam réew moom dossier yooyu day préféré teg ci concam waa ñu gis dossier bii nga xamante ni bii ñëpp xam nañ ni lu mën a taal réew mi la et pourtant mu lànk ne du ci teg concam te man jàpp naa ni dossier yi muy wax ne teg conc yépp bi ci mën a taar réew dossier yii dong ñooy yi nga xamante ni bi ñoo ci mën a taar réew kon bu fekkente ni bëgg na réew mi préserver ko ba ëllëg si biir buñ koy teg ci ay loxo wàccee nit ki réew moo xam ni bi réew mu normal la comme nañ ko ko wàccee woon kon am na dossier yoo xamante ni bi tey dañ koo war a jël tegee ko nële am na ñoo xamante ni bi sunu borom a leen may lim leen di may boo leen woowee économie réew mi taxaw loolu suñu boroom moo ko jagleel Ousmane Sonko li Ousmane Sonko am moom ci jëmmi boppam xamut lu mu te it je ni sénégalais yi ñoom ci seen jëmmi bopp am na ñoo xamante ni bii euh, dama déglu benn waay bu ma def mbir mi mu ne mu nekk ree ci man mu ne mu ne ñi contre Ousmane Sonko ñëpp mu ne il faut faire très attention ci ñi contre Ousmane Sonko mu ne. Ousmane dafa aay ci occuper xol yi mu ne moom euh, am na ñoo xam ni contre gi ñu contre Ousmane Sonko du wàllu sax politique maanaam bu ñu toogee ca seeni kër euh, seeni jabar ma nga ca Sonko maanaam day dem ba mujj gi sax la ñuy tudd turu Sonko ca kër ga moo ëpp joom yow lañ la fay tudd nee na am na ñoo xam ni loolu la ñu contrer ki nga xam ni mooy Ousmane sonk nee na ñenn ñi. dañoo dem ba yëg ni seeni taalibe kat léegi daanaka ay taalibey Sonko lañ ñooñu tamit nee na looloo tax ñu contre son ko donc pour te dire que ni wax na ko façon boo xamante ni bii façon booy ree la façon booy kii mais vraiment c'est pour lenn la pour joxe explication ci yenn yi am na loo xamante ni bi bu ko sunu borom defee ci nit da ngay nangu dogalu sunu borom parce que man su ma doon président Macky Sall dinaa def très attention ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko parce que jaar-jaaram daf ñoo nuru moom histoire boo xam ni mi ngi ñu ko doon nettali parce que moom nettali nañu histoire yonent yàlla Moussa ak ki nga xam ni mooy Firawna ni nga xam ni noonu la demee daal di wane ni sunu borom lu ko neex lay def ni mu comprendre loolu na jëlaat histoire boobu xoolaat Ousmane Sonko ku nekkoon simple fonctionnaire nekk inspecteur des impôts nga jël ko dàq ko mu jaar ci yoon askan wi jël ko yóbbu ko assemblée nationale ak prix for reste kooku tey di dem ba tey nekk njiital opposition bi ba noppi nag nga bëgg a koo jaaree foofu ñu ne ña ngi koy tëj askan wi lànk ne kenn du ko fi tëj ku mel noonu je pense que war nañu def très attention ci moom te man bu ma amee lenn lu may conseiller président de la république dama koy wax na def très attention moytu ñi nga xam ni ñi ngi koy jañax di ko wax attaqueel songal je pense que ni loolu mooy li nga xam ne mooy kii mbokk yi ak xarit yi beneen point bi nga xam ni moom laa doon wax euh, xam naa ni dama koy euh, lepp incha allah euh, ba beneen yoon parce que wax dëgg fa yàlla ñi ngi ci li nga xamante ni bi moom la ñuy wax waxtu julli yi kon ñuy joxante dig daje incha allahu rab yi beneen yoon ci l'émission des émissions gërëm nañ ñëpp alaaji Modou Diouf Abdou Top Ablaye jàlloo directeur programme son yi bu Diop ñi ngi gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm jërë ngeen jëf